ma njëkk laa wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog laa xamal besam bur yàlla ne bind na am malaayika ma aras day woor bëccëgu woor guddi salaamu aleykum wa rahmatullah yi bàyyi xel Refane TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di am mbégte ak kontaante bu baax ci bàyyi xel ngeen ñi bàyyi xel indi leen seen émission yóbbalu weeru koor ci wàllu naafila yi bu dee fukki fan ak ñeent maanaam bu ñu waree fukki fan ak ñett ba dog jot li ñu war a naafila bu ñu demee ca xuratul ayni bu sëriñ yi bu mbàkke radiyallahu taala anhu nañ fa fekk ñu war a naafila juróom-ñetti ràkka ràkka bu njëkk bi dinañ jàng faatiha benn yoon isaa jaa a nasurullaahi juróom-ñaari yoon loolu nag ku ko la mel na ni ku saraxe junni ci ay diinaar leewal junni ci ay gone junni ci ay jaam leewal junni ci ay miskin te dinañ ko jégal ay bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj dinañu ko nangul ay tiyaaboom te dinañ ko musal dinañu ko jégal ay bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te bu yowmal xiyaamee dina bokk ci ñi nga xam ne duñu gis lu ñu ragal te bu yowmal xiyaamee dinañu ko ràmbuloo lu ko soob ci ñi nga xam ne ñu war na dugg safara dina ci ramb lu ko lim bu ko neex yóbbu leen àjjana mbokk yi ku ci bëgg am yeneen i leeral demal nga abonné suñu page facebook youtube refan tv bul fàtte bës kolos notification bi ndax nga am suñuy programme wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillah salatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi julliti mbokki taalibe yi mbokk yi ñuy top ci seen site bi di refan tv fu gene mën nek di ñu sétan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci and gi ngeen di and ak ñun ci seen jetaay bi di yóbbalu koor ngeen koy am bes bu nek ci waxtu wi waat nañu wara andat ak yeen ci bi di leen siyaare di leen jaajëfal bu baax baax e, demb suñu jataay bi ñu sekkon ak yeen muy suñu fukkelu fan ak ñaar tay di fukkelu fan ak ñet ci wër wi ñu ngi doon waxtaan ci waxtu wi ñu war a xadd waxoon nañu waxtu wi mm, ci anam goo xam ne dañ ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi na mu ko daan defee eh, andi nañ ci itam ay détails eh, tey nag dañoo bëgg ñëw ci àtte bi àtte bi ci nekk kon sunna la waaye képp koo xam ne yéex naa xadd ba waxtu woowu jàll moo xam bi muy xedd xam na ne waxtu wi jàll na mu continuer di lekk moo xam xamu ko kooku bés boobu yi da koy continuer jàpp bañ a lekk bañ a naan waaye teewut bés boobu yi ginnaaw bu wéer wi jeexee da ko war a fay da ko war a fay loolu lu métti xamee la ci masab maliki yi xëy na am na yeneen masaahib yoo xam ne sax danañ ko toloore bo kooku dañ ko naan mën naa wéyal bés bi rek du fay waaye bu dee ci masab malik yi moom daa war a fay bés bi masab malik yi di mashab boo xam ne mboolem masaahib yépp moo ci gën a tar moom daanaka du maye lu bari loolu nag li tax mashab bi mën nañu wax ne imaam malik ku xamoon doomu aadama la xam nga bari na eh, nit ñoo xam ne bu ñuy xedd salaatu la ñuy xaar ñoo ko tey lolou teef la waye nak dañ koy teg ci ne guñ rek waye sax xam nañ ne waxtu wi ñuy xedd mom wess na ndax sa bo génnee faj ci fajar gi xol asaman si rek wala nga xol sa montor fim lay jox di nga xam ndax war nga xedd wala waro xedd kon bu ci tegee pen bobu yi nga xam ne sa bo retaré waxtu wi nga war xedd xam ko lek wala nga ñak ko xam lek mu ne la da ngay continuer bés boobee doo lekk doo naan da nga koy woor ba mu jeex te teewut bu weer wi jeexee nga war koo fay kon dana tax nga fagaru dana tax nga bàyyi xel waxtu wa ba buy waxtu wi jotee nga jéem koo euh, jox la mu laaj su la waxtu wi rawee itam nga jàpp li ñuy tuddee karmat nga xam ne da ngay continuer noonu bés ba kon loolu mooy ate bi ñu ñëw ci ñaareelu sunna bi ci sunnaay koor muy téla dog téla dog sa koor lolou ci sunnaay koor la bok waye nak sa buñ ko waxee itam ñu nga yàkkamti ba gis rek eh, melni sow bi xawna le dem gisato jant rek tax nga dog da ngay xaar ba jant bi so sa bu jant bi sooyee mom su boba mën nga dag sa koor motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamne ko jël ci shahlu ibnu saadin mu ne anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa yasaalu nnaasu bi xayrin ma ajalul fitra rawahu lbuxaari wa muslim nee na nit ñi de du ñu deñ di nekk ci jàmm ak yiw li feek ñu ngi gaawe dog li feek ñu ngi teel a dog li feek loola ngi am rek nit ñi di nekk ci jàmm ak yiw loolu nag ab soññee la kon ci nit ki war a teel a dog kooram doggoo gi itam yel na ci jullit bi bu dog jotee mu doge yu tooy bu ko amee na doge tàndarma sopp nañ ci itam mu tool ñett walla benn walla juróom wala juróom-ñaar yaay xool lu la ci neex rek ci lim yooyu mën nga koo jël bu fekkee nag nit ki amul tàndarma mën naa doge ndox mën naa doge ndox loolu itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko doon defee ñu jël ci Anas radiallahu anhu nga xam ne ab surga la woon ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ne kaana rasul sallallahu alayhi wa sallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalli fa in lam takun fa ala tamratin fa in lam takun xasan xasawatin min ma nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day bu daan dogg yu tooy yi la daan doge su ko amut doge tàndarma su amul tandarma nag nan ay guuxi ndox su noppee door julli timis dal di jëfandikoo leneen la ca topp loolu itam bari na ñuy jaxase dog ak ndogu dogg moom loo ko defee rek dogg la tudd dogg sa koor nga xam ne boo naanee ndox sa koor dogg nga ko boo lekkee tandarma dogg nga sa koor ñu bari nag dañuy dogg seen koor boole ndogu door a julli su boobaa waxtu bi da raw kon da ngay dog sa koor dem julli soo noppee nag ñëw door ndogu door ndogu rawatina bu dee koo xam ne nag daa aadawoo julli ji ca jàkka ja kooku moom bu fi nekkee di ndogu rek waa jàkka ja raw ko kon loolu itam lu am solo lañu bàyyi ko xel eh, di leen jaajëfal ci ànd gi di leen tàggu foofu ba suba incha allah ci beneen jotaay wasalaamu aleykum wa rahmatullah ma njëkk soog laa xamal besam ba ma njëkk wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog laa xamal besam bur yàlla ne bind na am malaayika ma aras day woor bëccëg woor guddi